stade de Mbour AS Pikine mooy match bi ëpp lu ci dugal ay but ci ñetteeli bëccëg bu saison bu championnat bu Sénégal bu Ligue 1 juróomi bit lañu ca dugal waa stade de Mbour yi profitoo ci am ndam lu am solo bi tax ñoom rek ñoo nekk ci ñaareelu place bu championnat bi nekk ci ginnaawu jàmbaar yu Saly yi nga xam ne ñoo jiitu waa Pikine yi dañ leen a jël jël bu njëkk dugal leen ak bu ci ab penalty yi bi ñu tollee ci ñetteeli simili Talla mi nekkoon AS Pikine moom moo ko dugal la waaye AS Pikine daal di teel a réagir daal di égaliser ci vingtième minute bi Correa daldi tontu Talla Mbaye moom it ci ab penalty yi ci score Boblé, le ñaari équipe yi dal di démé et vestiaire ci mi-temps bi ci pelouse bu stade Bruno Metsu bu stade de Mbour daal di tegle ñaari bi yu gaaw ci 49e ak 53e minute Wula Sané ak Talla Mbaye mi dugal doublé ci kanamu ancien club am ñoom ñoo fa jaar. donte ne Dramé dugalal na leen beneen but laata match bi di jeex AS Pikine dafa mujj ñàkk ci score 3 buts à 2 waa Pikine des ci ñetteelu place bu championnat bi am ñeenti poñ benn poñ rekk ci ginnaaw kiñ doon dajeel mu di Stade de mi leen jiitu.